ndeysaan ndeysaan ndeysaan doon ndeysaan ndeysaan detalles. moo nekkoon maire boo xamante ni ñun waa London yëpp ñun moo di woon London yi këram lañ daan añee waaye may leen ko def ren tamit nag ah saying like I can just come talk to you, give you the ticket. Oh, she come. Yeah. All right. We'll meet I just texted him. Please do. Like my math, you know. Yeah. We'll see you over there. next time you guys come back to New York, hit me up in Brooklyn, man. Sorry, you know, different. yeah. Okay. So Jenny, I'll see you on Tuesday. Nice okay. Bye. He's going. Mais Versailles Moussa. Luiz Jânio, isso aí mais one love bëggee amal jàmm ca la douze ba la ca la douze ba la incha allahu rabbi dëgg la yow la ñuy allah maa ngi ñëw jaajo jaajëf Wally mais one love bëggee amal jàmm ca la douze ba la ca la douze ba la incha rabbi ah dégguma waaw. Ah. incha allah rabi maa ngi ñëw incha allah. dëgg la. incha maa ngi ñëw jaajëf. Yes, I, yes, I, le golden boy de la musique sénégalaise Wally Ballago Seck vous dit bye bye New York City direction Dakar incha allah ci kàttanu suñu borom le nag ñu ngi joué Djiné Gala foofu ca Ngor ak Papis Niang le nag incha allah rabi juin ñu ngi ca Esplanade Grand Théâtre avec le Golden Boy de la musique sénégalaise ca le 12 bala incha allahu rabbi